di jot vidéo ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone ci kolos bi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala leen di nuyu di leen ziyaara kon Omar jëf ji mu jëkk jëf ginnaaw bu nit ñi jaayante ak moom mooy wéyal ndénkaanu abi bakrin radiallahu anhu lan la ko dénkoon mooy yabal ay quartier te mooy ay arme ca iraq xam ngeen ne iraq ka wax almusanna moo fa nekkoon moo ñëwoon ci abou bakar ci jamono bi muy wéradi ngir waxtaan ak moom ci ubbi ci songu réewi faris ngir dugal fa diine ngir gis na ay jooyoo yu bari am ci seen biir ñu jiital buur bu jigéen mu gis ni mënees na occasionné ci lii ngir dugal fa islaam waaye Aboubacar mënu ko woon a tontu ngir dafa nekkoon ci tawat mu dal di dénk Omar ibnu Xataab ni ko bu toogee gannaawam na woo nit ñi ci ñu dem eh, ca réewu ngir fatxu ko ginnaaw bu Omar toogee ci xilaafa gi ci la dajale nit ñi woo leen ci niñ bëgg ñu ànd ak musanna ngir xeex yi ak persi yi waaye kenn nangu ko wuyu ngir booba réewi faris dañoo doon ñu ñu raglu ci jullit yi ngir bari guñu bari ay ngànnaay ak not gu not xeet yu bare bare leen bis ku jëkk woo leen bisu ñaareel woo leen ci ñetteel ba bisu ñeenteel ba ci lañ ko dara wuyu ci li mu leen di woo ka ko jëkk wuyu si ci woote bi mooy kañuy wax Abu Ubayd ibnu Mas'ud al-Thaqafi ak Sa'd ibnu Ubayd ak kañuy wax Sulayt ibnu Qays bi ñett ñooñu wuyoo nag nit ñi toftaloo di wuy si ba lu ma junni nit daje ngir nangoo dem xeexi ak waa Faris bi junni nit dajee ñu wax Omar ni ko jiitalal kenn ci ñi fi jiitu woon ci muhaajiroon yi ak lansaar yi Omar ni leen déedéet loolu duma ko def ndax ñooñu li leen yàlla yëkkatee mooy xeex guñ daan xeex ak noon yi ak gaaw guñ daan gaaw di wujji wooteeb yàlla lu mel ni lañ defoon nag ka ko def moom laay jiital daal di jox ndigal Abu Ubayd mu jëkk wuy si fab bi jox ko ngir mu jiite arme bi war a dem Iraq kon loolu mooy arme bi jëkka yabal ñu dem Iraq ngir fatxu ko la jëkka xew mooy xew-xew ba ñuy wax mawqiatu namariq kon xareb an namariq mooy xare bi jëkk ci diggante jullit yi ak tarsi foofu ba ñu xeexee jullit yi dàq nañu leen gañe leen Abu Ubayd moo jiite woon xare ba bu dee ci wàllu perse yi ka ñu wax jaabaan moo ko jiite woon bi loolu jàllee atu al jasra mawqiatu al jasra boobu nag mooy ñaareelu xare bi ca lañ reye kilifa googu yi Omar jiite loon muy Abu Ubayd as-Saqafi Abu Ubayda dafa jéggi dex gi ci mawqiatul jasrabo bi ba mu yéegee pont bi ba jàll dajeeg colonel bi jiite woon perse yi muy ku ñuy wax narsi waaye daf leen di daal di gañe dal di jëlee ci ñoom alal yu bari ay tàndarma yu bari tàndarma ju rafet séddale ko arme bi daal di yónnee ci Omar ibnul Xataab leral ko ko bi loolu amee giir yi dëkk woon ci wet googu dañoo dal di ñëw nangoo joxe ci seeni galak galak nag bu ñu ko waxee yaakaar naa mooy tolloog li ñuy tuddee lemp jamono bi ñu toll ngir wane ni ànd nañu ak ñoom dugg nañu ci seen biir kaaraange bi loolu amee nag kilifa gañ daan wax rustam tam bokk ci colonel yu mag yi dafa di mer ngir gañe googu ñu leen gañe daal di waajal force bu mag boo xam ne moo ëpp bu jëkk ba jiital ca ku ñuy wax Bahman ñu demee ba jaakaarloo ak jullit yi xeex nañu xeex bu tar fekk dañoo indaale woon ay ñay yoo xam ne fasi jullit yi dañu koy ragal bay daw bi Abu Ubayd di gisee ni fasi jullit yi di ragale ñay yi bay daw mu sàkk ci pexe daal di tëb rek song wenn ñay dagg nuxura giñ takke woon waruwaay bi ña kaw daal di daanu jullit yi def ni moom defe ko doole ak um njàmbaare dem di àkk ñay di dagg yor seeni paaka ak seen jeesi di dagg takkaay yi saa bu ñu ko nee tipp rek mbooloo mi woon ci kaw dañu daal di jóoru ñu dal ci seen kaw xeex ak ñoom waaye eh, Abu Ubayda mi jëkk def loolu ñay wa dafa dal daf ko daal di song Euh, mu daanu mu joggi ci kawam ba loolu moo sabab ak faatoom radiyallahu anhu kon noonu la kilifa jullit yooyu Omar tànnoon faatoo ci mawtaatu al jasr ginnaaw bu mu feeñalee njàmbaare googu mu feeñal ginnaaw loolu am na beneen xew-xew bu ñuy wax mawqiatu Ulays moom mu sannaa moo ko jiite woon ñu teg ci mawqiatu al buwayb teg ci xaswatul anbaar bi yooyu yëpp jàllee nag mawqiatul qaadisiya moo ci mu topp musanna gannaaw bu xareb buwayb bu jàllee dafa desoon ca iraq waaye ca madain muy capitalu perse am xew-xew yu rëy yu fa xew ndax kilifay faris yi dañoo am lu leen naqari lool ci doyadik rustam ni colonel bu mag bi ak néew dooleeg buur bu jigéen bi fi nekkoon ñu daan ko wax buuraan ñu ragal lool ni seen doyadi gii mën naa indi nguur gi daanu ba ñu xupp rustam sax ci ne ko dañu lay rey rustam ci ay pexeem ak i xalaatam mu daal di fexe ba wéet ak buur bu jigéen bi waxtaan moom ne ko léegi dangay ngay bind bataaxel ci soxna yi Kisra yi sa baay ñi mu amoon ci ay soxna ak ñi mu amoon ci ay jëbër nga bind leen bataaxel ñu ñëw wuyu si ba ñu teewee ñu laaj leen ni leen ndax kenn ci yéen ndax kenn xam ngeen fenn fu doomu doomu Kisra bu góor dese ngir ñu mën koo tànn mu doon buur jiite jiite nguur gi ñun leen kenn desu ci ku dul benn xale bu ñuy wax yas de jërd yas de jërd moomu nag doomi Shahrayaan Shahrayaar ibnu Kisra la maanaam sëtu Kisra la moom moo fi des ci góor ci ku bàyyi ko ci moom yaayam mi ngi bokk ci waa Baduriya biñ waxee loolu ñu daldi fay yàble ca yaayam laaj ko mu indi leen xale boobu muy yas di jirit jamono boobu mu ngi tollu ci ñaar fukki at ak benn kilifay Perse yëpp dajaloo daldi di moom nangu ko topp kooku mooy ki mujj ci boori ajam yi muy yas di yas di jirta moomu nag bi mu toogee ci kaw lalu nguur gi ba sol yére nguur gi ñu solal ko mbaxanam nguur ba kàngam yépp teew ak kilifa yëpp teew borom personnalité yëpp teew mu wax ak ñoom wax ji la wax dañu leen man doom ju set la nguur gi dama ko doon ca samay maam fas naa yéene nag kuy gone dinaa jàpp ci sa rek nga jóg mag mu fi nekk it danaa dolli sa daraja fas na maa yéene moytu it ak rëy rëylu ci yéen wala ak mbewte fas naa yéene doxal ak maandute akuk rafetal ndax buur yi amuñ lu dul tàgg wu rafet seen ginnaaw te tagg wu rafet ab dund la ci nit ki ginnaaw bu mu faatu daal ne takkaayul maandute ak diine nag rafet na lool ci dënnu buur li ma xalaat ci yéen daal mooy danaa def sama kem kàttan ci lépp lu lu diw ay fas naa ko yéene buddi déjjati ko déjjate ko ci suuf danaa def sama kem kàttan ci lépp luy dëgg danaa ko dundal ba ñëpp teg seen bët waxee loolu la dajale soldaar yi daldi di jiital kañ ñi wax rustam mu jiite leen ngir mu war a xeex ak jullit yi bi mu sannaa gisee néewug mbooloo àndal ak nañee waaje ci la daldi di àndeek mbooloo àndal jàll fa ñuy wax ziqaar ba fa demee mu bind Omar leetar sàkku ci moom mu dolli ko mbooloo ngir ne ko noon yi ñu ngi nuy xupp ndax gën ñoo nose seen mbir bi bataaxelu musanna àggee ca Omar Omar dafa itteewu mbir ma lool daani wallaahi danaa duma buuri ajam yi ci buuri arab yi dinaa leen duma buuri arab yi la Omar jëkk a def bi mu jotee ci bataaxel bi xam ni perse yi jiital nañu buur ba ñuy wax yas de mooy góor jeetin leen lay lam jëkk def mooy dafa bind bataaxel ca jëwriñ ya mu sampoon ci ay birab ñam sampoon nag seeni tura ngi nii Attaab ibnu Usayd ma koy ma ma moo nekkoon ca Màkka nekk fa Omar ku ñu wax Ousmane ibnu Abil As moo nekkoon Taif Yacla ibnu Mulya moo nekkoon ca Yaman Xusayfa ibnu Muxsin moo nekkoon Ammaan ak Yaman Al-Alla ibnu Xadrami moo nekkoon ca Baxrayn Abu Ubayda ibnu Jarraax moo nekkoon Saam Al-Musanna ibnu Haarisa moo nekkoon Iraq Saad ibnu Abi Waqaas moom la yabaloon ca asakay Bani Hawaazin mu di ko dajale bataaxel bi mu leen bind mooy bu leen ba kenn ko am ngànnaay mbaa mu amu fas mbaa mu am kattan mbaa mu amub xalaat te ñu leen ko yebalal ma ko nam gën a gaawe ba boobu moom la Omar bind ñépp yónnee leen ko ñu ko toogaloon ci ay béréb bi mbooloo mi dajee ci Omar mu gën dëkk bi dem ba ci benn dégg bu ñuy wax siraar mu def mu samp ay baasam foofa nit ñi xamuñ ci moom dara xamuñ lu mu xamuñ ba xam day dem wala day toog tey dafa doon ko teyu koo xam ni euh, dawuñu ko sànjaaf buñ ko masaan bëgg a laaj dara ko mel ne Ousmane waxal mbaa Abdourahman ibn Awf Ousmane ñëw ci xew ak ana loo bëgg mu ne ko nañ ma dajaleel mbooloo mi ñu daal di woote as salaatu mbooloo mépp daal di daje mu wax leen li xew daal di leen di déglu nag ba xam lu ñuy wax xalaat ya génne ca laaj ba moo nekk nii la ci jëkk mooy xalaatu mbooloom nit mi te mooy li ñuy tuddee opinion publique mooy xalaatu mbooloo mi mbooloo mi ci ëpp li xalaat mooy nañ dem xeexi ak ñoom moom Omar ci bopp mit mu ànd ak ñoom ànd jiite xeex bi Omar dëppoog ñoom ci loolu ci xalaat boobu ni leen kon waaj leen kon damay ànd ak yéen bu beneen xalaat bu gën bii bu gën bu gën bi euh, dikkut beneen xalaat bu gën bii ngeen wax bu dikkut rek damay ànd ak yéen dem kon lii danañ ci déggee ne Omar doonutoon kuy beddi koo ab xalaatam te mooy kii ñuy tuddee dictateur jamono bi ñu toll koo xam ne lu muy def ci xalaat bopp na lu muy teg waaye du laaj kenn xalaat kon Omar sori na loolu Omar jamono bu ne dafa daan làmbu di sàkku xalaat yi gën ci xalaat yi ngir jëfandikoo ko kon rayu amati naas te mooy opinion publique bi ñoom li ñu xalaat mooy nañ dem xeexi ak persi yi te Omar jiite ger bi waaye nag ana kilifa yi nag benn benn kilifa yi ñoom luy seen xalaat ñi nga xam nag ñooy magi saxaaba yi tey kilifay arab yi Ali ibnu Abi Talib ca la Talha ibnu Ubaydillahi ca la Az-Zubayr ibnu al-Awwam ca la Abdurrahman ibnu Awf ca la ñooñu ñoom lay seen xalaat wuute na ak xalaat bi ñuy joxe moo ñoom dañoo dëppoo ci ni na Omar yabal kenn ci saxaaba yi mu ànd ak arme bi dem xeex yi te moom mu bañ a dem bu yàlla dogalee liñ bëgg am te mooy fatxu ko loolu mooy liñ soxla loolu xewal bu yàlla dogalee loolu amut it bu ñu rayee kam yabaloon mu yabalaat kenn te loolu dana naqari noon yi te it moo leen gën a mën a tiital ci muy demal boppam loolu moo jub ndax xalifa bi bu fekkee dafa jiite armo bi moom ci jëmmi boppam benn mu gañe benn ñu dàq ko benn ñu ray ko ci birab ba mu doon xare te lu ci am bu fekkee dañ ko dàq lu taratar lay doon bu fekkee dañ ko ray it lu diis a diis lay doon te mujj ga it du rafet ci jullit yi te gis-gis boobu ñu ñu gisit moom la jullit yi gisoon ci jamono Abu Bakar ba mu bëggee jiite ba ngir xeex ak ñu murtatoon ba mu ko bëggee jiital boppam gis-gis boobu lañ ci amoon ba dañoo ñëw ne ko ñu ngi lay ñaan sa diggante yàlla yow xalifatu rasulillah nga bañ a fab sa bakkan bi di ko gaaral ci ak dee ndax na nga xam ne la rayee kat nit ñi ñu amati benn nos te it nga sax toog moo gën a di ci noon yi ci nga dem Dakar ñoom kon yabalal de buñ ko rayee nga jiital kenn nga fab nga jiital Lalu sax buñ ko waxé manes na ni yonente bi kat da daan demal bopam di jita xari waye nañ xam ne yonente bi wax yu gi ci mom la daan wacc yalla diko ko ci ay ngañay tayit buñ leen masaan nar a gañé yalla mën na yabal ay malaika ñu jappalé ko té lepp téwut bañ ni bi fatuna na reng amna ci arma ba ba mbolo dañu daldi daw dem madina kon xalat bi ñi xalat jamono bu ne mo gëna a moy kilifa gi top nan lañ tanne saad ibn abi waqas ngir mu jiite ji xareb faris saad ibn abi waqas mo waxam mom lañ wax legi ni ma nga nekkon ca asakay bani hawazin di lijeent ca najj omar bindon na bata xel ci mu tan borom xalaat yi ak ko am katan ak ko am nganaay ni mu ko bindee ñeneen ñi ci dess bataaxelu saad bi muy ñëw saad tonto Omar bi bataaxel bi ñëw mi ngi fekk Omar di diso ak nit ñi ci kan la wara yabal mu jiite ji sax boobu yi bataaxel ba saad ma ngi ci wax Omar niko tanal na la junni faris junni gawar yo xamni ñom ñep am nañu katan am nañu xalaat borom ngeel lañu mëna ar seen nit mëna ar seen nit boroomi askan lañu boroom xalaat yi jub lañu kon ñu ngi noonu seetal nooy def ci ñoom bi bataaxal bi ñëw tasanteeg Omar doon diisoo ak mbooloo mi ci kan la war a yabal mbooloo mi ni ko am nga ki ngay wut mun leen ko mu ñu ne ko gaynde gu rafle mu leen mooy kan ñu ne ko Saad mu dal di yable ci Saad ni ko na ñëw bi ñëwee mu jiital ko mu war a xeexi ak waa Iraq dénkaan bii la ko dénk ba ma ko yabalee moom Seydina Omar dénkaan bi mu dénk Saad ibn Abi Waqaas dana ko yow Saad yow Saadu bani Wahayb bul waru ci yàlla mukk ci wax ji ñuy wax ni yoway nijaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax na nga xam ne yàlla du fab lu ñaaw di ko fare lu ñaaw yàlla buy far lu ñaaw lu rafet lay fab fare ko lu ñaaw waaye lu ñaaw du ko fare lu ñaaw na nga xam ne yàlla amut ak kenn ak mbokk lim seq ak nit ñi mooy ñu topp nit ñi ka kaw ak ka ca suuf ñoo yem ci jëm yàlla yàlla seen borom la ñuy ay jàmm li ñuy rawante fii ci àdduna mooy jàmm la yàlla yor li ko joxe it nañu koy amee mooy nangu ko topp kon xoolal mbir mi nga xam ni ba bañ yónnee yonente bi ba ni mu fi jógee moom nga gisoon mu di ko def nga taxoog loolee mu te xam ne loola mooy mbir ma ni ko lii mooy sama ndénkaan bi ma lay dénk boko baye japp lenen nak sa jëf dana yàqu te da nga perte kon denkan bobbi moy denkan bi Omar ibn Khattab denk Saad ibn Abi waqas ca bam koy yabal bim mu ba ko ba bëgg yabal niko demal dal di koy wowat niko jital na la ci ak wa Iraq jàppal denkan bi ma lay wax na nga xamni mbir mu tar ay njàqare ci nga jëm ni dara mënu la caa musal lu dul dëgg kon fexeel ba tamal sa bopp tamal ñi nga àndal lu baax tey tàmbulee ci lu baax di ko mujje na nga xam ni aada ju ne baax bu ne am na lu koy dëgëral aw yiw nag li koy dëgëral mooy ak muñ dénk naa la nga muñ ci lu la jot na ngay muñit la la ca la woot la nga dégg ñu ne wuutu na la sa gannaaw kon bu boobaa da nga am ak ragal yàlla te na nga xam ne ragal yàlla dey ci ñaari mbir la daje muy topp ay ndigalam ak moytu ya muy bañ da xam ne it yàlla ñi ko topp topp wuñ ko lu dul bàyyi bañ guñ bañ àdduna tax ñu topp yàlla ak bëgg guñ bëgg àlaaxira ñi ko moy it mooye wuñ ko lu dul bëgg àdduna ak bañ àlaaxira xol bu ne nag xol yi nag am na mbir yu nekk ci biir yu ca yàllay def yoo xam ne am na ca lu nëbbu waaye am na ca luy feeñ ni ko la yàllay def ci biir xol yi te muy feeñ ci kaw nit ñi mën koo gis mooy nit ki dëgg gi mu nekk mu yemale ca ku koy tagg ak ku koy xas loolu saa buñ ko gisee ci nit ki danañ xam ni xaqiiqa bu nekk ci xolam lay dund xaqiiqa bi nekk ci xol te nëbbu moom itam dees na ko mën a xame ci xikma buy feeñ ci làmmiñu nit ki bàyyi ko ci ab xolam nit ki saa buñ gisee xikma di bàyyi ko ci ab xolam te mooy wax ju am njariñ di jaar ci aw làmmiñam loolu day tekki ni xaqiiqa bu muy dund ci xolam danañ xamee xaqiiqa boobu nit kiy dund ci xolam ci cofeel gu nit ñi am ci moom ni ko gul dëddu mukk sàkku ak cofeel ci nit ñi ndax yonente yi sàkk woon nañu ko yàlla saa bu bëggee ab jaamam daf koy bëggloo nit ñi waaye saa bu bañee ab jaam nag daf koy bañloo nit ñi kon xoolaat na nga toll ci yàlla ci ni nga toll ci nit ñi noo gis sa noo gis sab cër ci nit ñi ñu jëm jëmee ko ci say mbir di ko wuy see sab woote na nga xam ne tolluwaay boobu yi mooy sa tolluwaay ci yàlla kon loolu ginnaaw bu mu demee ba dikk ko bëgg a yabal moom dafa ko tëyewaat ñambaasal ko loolu Saad ibn Abi Waqaas jamono boobu mi ngi toll ci ñeent fukki at Omar di def mbooloo mu ñëw rek mu yabal leen ñu fekki Saad noonu la sa la la armob saad di dolli ko ba ba nim mate junni ak juróom muy armo bi gën a mag ci buñ yabal mu xeexi ak waa Faris faatug musanna musanna nag dafa faatu jëkk saad di di agsi ci la musanna faatu ci sababu ay jam-jam yu ko daloon ca xare ba ñuy wax mawqiatul jasr xaj na bu ñu ko yàlla mayee danañ ko beral ci boppam mu masal na waxtaane ay jaar-jaar noonu Omar dañul di yónnee ay bataaxel Saad di ko leeral ay xalaatam nga xam ne fa mu toll mi ngi koy yónnee di ko leeral ni ko na nga def nangam na nga def nangam Saad daal di dem jëm fa ñuy wax alxaadisiya ba mu fa àggee la armob musanna ñëw tafu si ci moom te gannaaw bu musanna faatoo euh, ka ko jiite woon ñu ngi koy tuddee Bushayr ibnul Xasaasiya Saad bi mu xamee ni buur bu buuru Faris jiital na Rustam ci mu jiite arme mu bind Omar bataaxel leeral ko ko Omar tontu ko ni ko li ngay déggee ci ñoom bu mu la jàqloo la lay indil bu mu la jàqloo na nga dimbandikoo yàlla te sukkandiku ci moom nanga nga fa yónnee ay nit ñu am xel ñu woo ko ci yàlla yàlla dana def woo boobu ñu koy woo ci moom dana dana dana ko def mu doon ak doye di ci ñoom dana ko def mu doon ak dolliku ci yéen te bis bu set lu xew na nga ma bind wax ma ko bi tontul Omar ibn Khattab loolu ñewé ci sande di digal mu yabal fa ab délégation ca buur ba ngir ñu woko ci diine sande dafa dal di tan mbolo yabal leen bokku na ca mbolo momé ka wax an Nu'man ibnu Muqarran Busr ibnu Abi Rahm Hamala ibnu juwayya Handala ibnu Rabia فرات بن حيان عدي بن سهيل وطارد بن حاجب المغيرة بن زرارة بن نباش الأسيدي ak kañu wax al Ashans ibnu Qays ak Hirs ibnu Hassan ak Asim ibnu Amr ak Omar ibnu Ma'di Karib ak al Mughira ibnu Sha'ba ak al Ma'na ibnu Harisa ñooñi ñooy mbooloo mi Saad tànn yabal leen ca Yasdigird ngir ñu di ko woo ci diine ñooñu bi ñëwee ci Yazdajird wax ak moom eh, ka ñuy wax Nu'man ibnu Muqarran moo wax ci turu mbooloo waaye ba mu waxee ba bàyyi it Yazdajird ba mu koy tontu tontu reetaan ak saboté rek la ko tontu bi di waxee ba noppi ka ñuy wax al-Mughira ibnu Sarar daal tontuwaat bi mu tontuwaatee nag Yazdajird daal di mer ni ko nag dangeen a xam ne ndaw deesu ko rey ñu kon ma rey leen daal ne nañ ma indil saakub suuf ñu indil saakub suuf mu ni seet leen ki gën a tedd ci ñoom ngeen yan ko ko te jiital leen bañ gën dëkk ñu leen dellu leen ci ka leen yónni nee leen ko danaa fa yabal rustam moom ba dana ko suul ci suuf suul leen ngeen ànd ak moom ci ci ci ci ci ci xuntim al xaadisiya ci paxum xaadisiya dana ko fa suul suul leen fa yéen léegi bi ñu saakub suuf bi ci xel mu jub mu sahaba yi amoon kañu wax Asim ibnu Amr dafa dal ni ñokket ñew ni man may seenu sang man may ki gëna tadd ci ñu lepp bëgg ñu ko suuf ci xañ na bu doon toon borom xel bu ñu indee saako suuf eh, day arrière kenn du ko nango jël waye ñom seen xel mu jub tax na mu ñew man ni la ñu yan ko ko ci loosam mu dal di genn bam dene ba ci gilemam mu war ko jël suuf ci yobale ko ci sant ni ko bégal nga xamni yalla jox na nosub seen nguur ndax suuf suuf jox kon déggin woowu déggin wu rafet la woo xam ne saxaaba yi dañ ko amoon te ñu ngi ko jëlee ci jàng guñ daan ak dégg guñ dégg woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa kon ba mu sa fabee bi jublu ci ay saboote kee moom déggin wu rafet la ca am ngir dañuy jot nañ ci nguur gi rek gàtt na googu gi mu ci gàtt na moom la yàlla dëggal ndax dafa ñëw ne saat déggal ndax yàlla jox nañu nosub seenu nguur noonu Rustam dal di dajale ab ar mu mat téeméeri junni ak ñaar fukk ànd ak ay ñay ñu daal jëm ca wàllu xayra biñ demee ba jaakaarloo ak armu jullit yi daldi samp seeni baas ci tefes gi tefesu dex gi jaakaarloo ak jullit yi jullit yi daal nos seeni sàppe daal di taxaw ci wet gi ci des jaakaarloo ak sàppi waa Faris noonu ndaw yi di baagante ci diggante Saad ibn wax kaas ak Rustam kañ jëkk yabal mooy kañ wax Zahra moom la Saad yabal bi mu ñëwee mel na ne am na ci ñenn ci euh, lenn ci masaadir yi lenn ci bindikati histoire yi ñu bind ñu wax ni xëy na sax gàttal tax andiwuma ko wax nañu ni rustam dafa doonoon ko xam ilmu nijom fan yooyu mu gënt gënt ko xam ne lim gis ci ay tegtalam yépp daal mooy du gisul tegtal bu rafet daal digganteem ak ci ci xeex bi mu waaj a xeex digganteem ak julit yi loolu moo waral xelam joo ko ci mu bëgg a waxtaan ak ñoom ci njëkk ak talaa ngir ñu mën a bàyyi xeex bi bi saxra ñëwee rustam bëgg a jàmmoo ak ñoom waaye nag du jaar ca digg ba daf koy gaaral rek daal ni ko yéen di yéen suñuy dëkkandoo ngeen am na mbooloo mu bokk ci yéen moo xam ni ñu ngi fii ci suñ ron suñ ronu kilifteef te it luñ man ci rafetal suñ diggante ñoom def nañu ko lor ju ne fegal nañu leen ko cër bu ne jox nañu leen ko wattu nañu leen wattu seen seenu seenu jur ba ci forukaay yi ñuy forale sunu jur fa leen bàyyi ñu koy forale sunu jur di leen xont terewuñu leen ci ñu commerce ci dara fii ci réew mi ci suñ suuf ba ci biir loolu am nañu ci ay dund yu bare bare am nañu ci alal ju bare bare sax ni ko li nga wax dëgg la li nga wax lu am la waaye nag suñ mbir daa bokkut ak mbirum ñooñ ñi nga wax li nuy sàkku yi bokkut ak la ñooñee doon sàkku ñun ñëwuñ fi ngir di sàkku si mbirum àdduna ñun li ñuy sàkku ak suñu ite jëpp mooy àllaaxira lii nga waxit moo am suñ masaan ñëw ci yéen dañu leen di mokkal di leen toraxlul di sàkku àdduna ji ngeen yor waaye yàlla dafa noo yabal ab yonent mu woonu ci yàlla ñu wuyu ko yàlla wax yonenteem boobu yi ni ko kuréel bii nga àndal jal naa leen ci kaw képp ku nangu wuta diine woo sama diine képp ku nangu wuta diine woo sama diine kuréel bii nga àndal laay jal ci seen kaw ñu ñu xeexal ma ak ñoom te ñoom laay defal ak noteel li feeg ñi ngi saxal lii te mooy diine dëgg ci diine diine mbir la moo xam ni kenn du ko won ginnaaw te toraxul kenn du ci jafandu te teddul ustam ni ko diine jooju lu mu mu ni ko keno bi nga xam ne dara du baax te taxawul ba noppi mooy seere ni yàlla rekk buur Muhammad ab yonenteem la ak saxal lepp lam lu mu andi ni ci yalla la ko jele nga saxal ko nangu ko deug nangu ko def rus sam ni ko lolou wax ji rafet rafet la way ak lan mu ko ak nak genné jam ñi ci ñuy jamu jam ñi yobulen ci jamu yalla ni ko rafet na ak lan mu ko ak xam nit ñepp doomi adam la ñoo bok ndey ak bay adam moy sen bay awa di urusan rus sam ni ko lolou rafet waye ndax ndax suma baye li ma nek ñu and yeen ànd ak sama mbooloo am nu ngeen def ndax da ngeen di dëpp da ngeen di dëpp bàyyi dellu mu ne ko ah wallaahi te dootuñu jege ci seen réew mukk xanaa commerce sa mbaa ñu am aaju ñoo di ko dox si mu ne ko wax nga dëgg mu daal dëpp dem moom Zahra Rustam waxtaan ak kilifa yam àndaloon waaye ñoom ak rëy rëy lu dikkal leen akum jomblo sànq di yabal fa beneen ndaw muy Ribi ibn Amir bi mu leen ne maa ngi yebalal beneen ndaw ñu waajal ko daal koy lalal ay tapp yu rafet waaye bi mu ñëwee nañu wut a toog ci tapp yi ca suuf la toog ñu ne ko lu waral lii nga def mu ni leen mun jekki ci seen taar yi seen waajtaay seen seen seen rafet rafet yi àddina yi bëgguñu cee jekki ci kaw seen tapp yu rafet yi léegi nag Rustam wax ak moom ne ko dëgg dëgg lu leen andi mu ne ko li ñu andi mooy yàlla moo nu fi yabal ngir ñu génnee ku ko soob ci jaam ñi mu bàyyi génnee ko ci jaamu jaam ñi yóbbu ko ci jaamu yàlla génnee ku ko ci jaam ñi mu génn ci xatuk àdduna jëm ci yaatuk àdduna ku ko soob ci jaam ñi it danañ ko génnee ci jenguk diine yi yóbbu ko ci maanduk islam loolu yi ku ku nu ko nangul ñu nangul la ñu nangu la bàyyi la ca bàyyi la ca sa sa sa moomeel daal dellu bàyyi la bàyyi laa ak sa suuf nga moom ko ku ko gàntal nag ñu xeex ak yow ba bañuy àgg ci lim yàlla deel pour lu leen yàlla deel mu ne ko ku faatu am aljanna ko fi des jàll am li nga bëgg ruus tam ni ko dégg naa li ngeen wax waaye ndax mënu leen maa may feeg ab diir ma xool yéen itam ngeen xool mu ne ko a ah kay ñaata ñaata fan nga bëgg benn bis wala ñaari bis ruus tam ni ko déedéet léegi kay da ngeen may da ngeen may may ba ma bindanteeg samay kilifa waxtaan ak borom xel yi ba xam nu ñuy def. waaw dégg nga ni ko déedéet ñu itam loolu mënta nekk. ñun itam li ñu digal mooy ab noon bu ñu jàkkaarloog moom mënuñ koo may dat bu ëpp ñetti fan loolu la yent bi jàngal suñu kilifa lool la ñuy jëfe léegi mën nañ laa may ñetti fan nga tànn benn ci ñetti yi jébbalu wala nga nagoo joxe galak wala ñu xeex yow benn ci ñetti yooyu yi ginnaaw bu ñetti fan yi jàllee tànnal benn ci bi dat bi jeexee te Rustam waxul dara lu leer mo leen bind bataaxel mo leen yónni yónnee ci ñoom ndaw ni léegi ndax yéenay jéggi dex gi fekk sinu wala nun ñooy jéggi fekk leen bañ laajee saad saad mi wax leen leen ñu jéggi fekk si leen yéen ñu ne ñu ne rustam jéggil fekk sinu saad yónnee ci nit ñi ni leen nañ jël seeni place jekkal seeni bi waa Faris jéggee daal di jël seen sappi seen waraag bu njëkk ñoom itam daal di programme seen programme jullit yi it programme seen programme waaye jamono boobu Saad dafa wérati mi ngi am lu mel ni ay góom ak lu ñu wax xirqu nasa xirqu nasa luy dal nit la ci eh, ab luppam ab poojam nga xam ne du mën a war du mën a toog sange si nekkoon dafa nit ñi ci kaw teg lu mel ngegenaay defeenu ci di di bind ay kayit di ko sànni ka ñuy wax Xaalid ibnu Urfuta ngir moo ko fa wootu li muy digle mu di ko ci bind la muy tere it mu di ko ci bind booba mi ngi nekk ci suufu sange soosu mu nekkoon léegi rangug jullit yi nekk nekk ci wetu wetu wetu sange soosu loolu am ci nit ñi ñu jekki coow ndax baaxoowuñ njiit li leen di jiite di nekk ci béréb bu am sécurité ñoom ñu jaakaarloo ak arme bi mu jaqee coow li moo waral Saad dafa wàcc ba ñëw wan leen ngant lim am won leen góom yi ba ci ñaari njekki sax góom ya ca nekk mu won leen ko ñu daal di koy jégal amatuñ sikki sàkka ci ni jàmbaar la dafa am ngant waaye mbooloo ma jaqe woon coow la ndax loolu li mu yàq dafa bari def leen a jàpp jéng leen tëj leen foofu yi ni leen yéen toog leen fii ba ma lijjanti seen i biir bokk na ci mbooloo moomee ku ñuy wax Abu Mihjan ci jàmbaar la bokkoon waaye Saad dafa ko tëj dafa ko tëj jéng ko xutba bi Saad def gannaaw bu mu sante yàlla tàgg ko da leen yàlla day mooy moom képp ay dëgg yàlla day bokkut ak kenn nguur gi yàlla wax na ci alxuraan ni wala xad katabna fi zaburi min baadi dikri أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يلا بدون نتصبر نصوف سي سما جام يباح نوكي دون نيلن نك صوف سي ينجن نيو تاينك موي موي دونو لين يالا دي واخ موي ديل بيلن يالا ديل yéen nag na ngeen xam ne yéenay sangi arab yi yéenay kilifa arab yi yéenay tànnee fi giir yi yéenay teraanga yi ñu nekk seen ginnaaw bu ngeen dëddoo adduna xaymam alaxira yàlla dana leen booleel àdduna ak alaxira te loolu du tax kenn dee ci waxtu wum wal waxtu waaye nag bu ngeen fexee ba doyati fexee ba mànkil seen bopp di seen bu boobaa da ngeen manquil seen bopp da ngeen seen seen doole dana néew da ngeen ñàkkal seen bopp fulla te da ngeen yàq seen ëllëgit nag daal di bind bataaxel ni leen xaalit ibnu xurfata laa fi teg dara terewuma ñëw nag taxaw taxawaayam lu weesu metit yii ma am waaye nag maa ngi leen di tiim sama jëmm it da ngeen koy seen na ngeen koy déglu te di ko topp ndax li ma koy digal la leen di digal xalaat bi ma koy joxit moom lay jafe léegi bi biñ jàngee bataaxelam boobu yi nit ñi dégg ko ñu daldi di dolliku aw yiw dolliku ak góor góor daldi koy nangul xalaatam boobu yi daldi di dogu ci topp ndigalam daal di nangu ngànt loolu mu am nangu yépp loolu yi mu def saad foofu la digale nit ñi ni leen nañ jàng saaru jihaad te mooy sóorut lan faal bañ ko jàngee lañ yëg mbégte ci seen xol ñu yëg ak dal ci seen xol ci biir jàng ko jàng bi jàngkat yi jàngee ba noppi nag saad daal nag na ngeen tàqoog seen biir ba ba ngeen di jullee tesbaar ba noppi bu ngeen jullee tesbaar danaa kàbbar benn kàbbar su ma kàbbaree yéen ñëpp na ngeen kàbbar ànd ak man bu ngeen déggee kàbbaru ñaareel bi na ngeen kàbbar te jël seeni ngànnaay seeni waajtaay su ma kàbbaree kàbbaru ñetteel bi na ngeen kàbbar ñi nga xam ne ñoo yor fas yi dal di daw daw dem daw di daw dikkaat defar def ak cawarte su ma kàbbaree ya, kàbbaru ñeenteel na ya, ngeen dem ba jaxasoog noonu yi te wax baatub laa hawla wala quwwata illa billah noonu la Saad ibn Abi waqas nosé armo bi daal di dëfeenu nag ci ngegenaay li di seetaan kon bis bi jëkk ci mawqiatul qaadisiya mooy bis bi ñu wax bisu armas kon armas moo ci jëkk sànq bi ñu julee subaa ba noppi ba mu kàbbaree kàbbar bu jëkk def kàbbaru ñaareel ba mu defee kàbbaru ñetteel la jàmbaari farisi jóg di tal jàmbaar yi jóge ci wetu perse ñu jog dal di tal ger bi nga xam ne mayuñ ko muy kabar kabaru ñentel kon sax li jottu ta kabar kabaru ñentel bi ndax bi kabaré kabaru ñettel bi la mbooloom tar ci jóg ñew dal ci kaw giirug asat and ak aw ay ñay ñay wi dal di dal ci kaw li ñu wax may mënatul jees ta moy mbooloo mi nekk ci wetu ndijoru armo bi dalit ci kaw mbooloo mi nekk ci wetu càmmoñ gi ci kaw fas yi yi ragal leen di daw sax di yónnee ci Asim ibnu Amr ni leen yéen bani tamit ndax ñay wi amu leen ci ni pexe ñu ne ko ah kay wallah waa Asim daal di jóg fas yéene song ñay wi ñay wuñ ca àgg rek fexe ba ni tipp la la la ko takkoon la takkoon ndax ñay wi dañ koy takk fab dara lu mel ni ay ak waruwaay boo xamante ni day mel ni ab mm, tegandaay boo xam ne mbooloo may mën nañoo toog ci kaw léegi nag yor seen fet di fet waaye lañ ko takkee nag moom lañ dikk ni ko tépp bu ko defee mbooloo ñu dal ci seen kaw xeex ak ñoom lañ def ba ñay yépp ñu dagg seen i takkoon mbooloo ya ci nekkoon wàcc ñu jaamaarloo ak ñoom rey leen ñoom ñëpp noonu lañu xeexee xeex bu tar ba jant bi sox léegi bi guddi gi duggee tuuti léegi ñu wàcc ñii dellu fañ jóge woon jullit yi it dellu ca seeni place wax nañ ni bis boobu giirug asat googu nga xam ñoom lañ njëkk dal ci seen kaw rey nañ ca lu mat juróomi téeméeri nit kon loolu mooy première bis bi bisu ñaareel bi mooy yow mu axwaas bisu axwaas ci ëllëg sa biñ xëyee noon yi xëy ci seen waajtaay ñoom itam fekk sard am na ñoom yabal ca ña dee ni leen nañ leen di tuxal di leen yóbbu ca bir bi ñuy wax Nusayb ñi nga xam ne dañu leen a gaañ ñu yóbbu leen ca jigéen ña ngir ñu taxawee leen foofu ci bis boobu ñaari armo yi xeex nañu xeex bu tar ba bëccëg bi xaaj wax nañu ni limu ña fa dee ak ñu gaañ ci jullit yi mat na ñaari junni euh, persi yi fukki junni ci bis boobu bisu ñetteel bi di yow ma jullit yi ci bisu ñetteel bi bañ xëyee jël ñañ rey ci ñoom yóbbu leen ca barab ya ñañ ca gaañ ñu yóbbu leen ci jigéen ñi ba jigéen ñi ak gone yi ñoo féetewoo di gas bàmmeel yi di denc ñi faatu yow ma amaas nag njëlbeen gi ba ca mujj lépp a tar arab yi ak ajam yi ñépp la metti ñoom yas di jërd fu mu toll mi ngi yónni yónnee di dolli di leen dolli mbooloo ca ña fa des fa moom tuuti rek ñu gañe jullit yi waaye ndimbalu yàlla moo leen dab xaaxaa def ci ak njàmbaare ndax dafa bokk ci mbooloo mi Omar mujj yebal mbooloo mi Omar mujj yebal ñu ñëw dolli si jullit yi matoon nañ juróom-ñaar téeméer nit waaye mu seddale ko téeméer par téeméer loolu ñu ñëwee am na njàqare lu mu dugal ci xoli yéefar yi xaaxaa ak Asim ibnu Amr ñooy ñi nga xam ne dañoo daal di ñokket dem ca ñay wa nga xam ne mooy ñay wa gënoon a rëy ca ñay ñay wu weex wa bañ demee e, dàkk ko dàkk bët yi kenn fu ñu dàkk benn bët ñu fukk bëti ñay wa fekk ñay moom dañ cee xamutoon secret bi waaye bët bët yi boo ko dàkkee ba fokk ko jeex na léegi dara dootu ba taxawte bañ gëstoo loolu ba xam ko nag ba dàkk bëtu ñay ba fokk ko nag noonu la ñay wi duuree rek jaar ci biir persi yi ba rey ca mbooloo jàll daal di taw guddi googee nag bañ xeexee ba jant sox guddi googee ca sës moom lañuy tuddee laylatul xariir mooy laylatul xaadisiya xarib xaadisiya dëgg sax nag euh, foofu yi la accès ndax ginnaaw bu ñay yi dawee jullit yi daal di agsi ci waa Faris jant di waaj a sox léegi jullit yi nga xam ne ñoo yoroon seeni tànk daldi jitu jëm ci persi. ñi waron fas yi des gannaaw aar leen ndax ño xeyon di xex ñi waron fas yi ñoo xëyoon di xex biñ demee ba tant bi wajaso ñi yoron seen tank avancé ñi nga xam ñoo fas yi di leen aar xex bi bim taré ñaar ñaari kurel yépp muñ moy kurelu farisi ak kurelu jullit dem nañ ba benn baat kenn waxatu ko lu weesu di bëmb moo tax ñu di ko tudde laylatul harir guddi googu guddi képp moom lañ ci xeex ginnaaw gee xeex nañu ko ba bët set keseŋ keseŋ yi jaas yi boo ko déggee day mel ni mbaari tëgg yu ràbbaloo ginnaaw gee ba bët set nga xam ne xëy nañ ci xeex ba jant so gannaaw gee ñu tàmbaliwaat ba bët set keroo waa Faris ak jullit yi gis nañu mbir moo xam ne mosuñu ko gis ci ak tar mujj Rustam ak Saad kenn xamatu ci ci xibaari xeex bi dara Saad moom daldi di féetewoo di ñaan yàlla kenn gëmmul bët ci guddi googee ñu xeex lu mat vingt-quatre heures te taxawul bañ bët sété nga xam ne kaati ari matna ka ñu wax qaaqa di wër ci suba gi ci nit ñi ni leen wenn waxtu kep bu ngeen ko amaté da ngeen gañe légui muñ leen rek te dëgër di wër julli di leen wax loolu di leen sañ ba mbolo mbolom kilifa dajé top ci ginaaw ñu dal di jublu rustam lañ demee ba jaxaso ñi nga xamni ñoko doon aar ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo féete ñoo nekkoon ci kanam ruus amen li koy ar ñu dem ba jaxaso ñom ak suba gi léegi biñ accé ci ñom ñaar ñi feggu ci armo persi. yi muy mbooloo mi nek ci wetu ndior ak mbolo mi nek ci wetu càmmoñ ñom dañu dal di tàmbalee arrière ma tàmbalee tayel léegi nonu ñu jaxaso ak ñi tuddé al qalbu ta moy ñi nek ci digg guerre jaxasoo ñom xex xex bu tar jamono bobu ngelaw lu tar ñew fa bi mu saket yi waron biñ sampaloon rustam sa saket yi ko waroon dafa dal di naaw dem tàbbi ci tax nga rustam bi saket yi naawee mu dal di jóg dem ci peggu genn gileen bu safoon ay bagaas làqutu ci ginnaaw bagaas yi bam ci làqutoo ka ñuy wax xànqaax ñëw na ba gis lal bi Rustam toogoon mu ñëw taxaw ci kaw ba xool ko gis ko fekk Rustam ma nga làqatu ca ginnaaw bagage waaye ka ñuy wax Hilal ibnu Ullafa moo ñëw caw jeesi ji ca buum ya takkoon bagage yi yi daanu ba genn wàll gi daanu ci kaw Rustam moom gisutoon Rustam bi loolu amee Rustam daw jëm ca dex ga mu dab ko jàpp ci tànk bi diri ko ba mu génn mu dóor ko jaasi noonu la ko cawe ba nim faatoo mu jàpp ci tànk yi diri ko sànni ko ci biir baxla ya daldi woote ca kaw yéeg ca kaw sees ba rustam toogoon ni xataltu rustam wa rabbil kaaba rey naa rustam giñ naa ko ci borom kaaba gi bi loolu amee yéefar seeni xol daal di tiit ñu daal dox noonu lañ dawee léegi kañ wax aljaali taxaw ci buntu dex gi daal di woo waa Perse ni leen ñëw leen ñu daal di jaar ci kaw dex gi jéggiwaat daw noonu Sard daal di yónnee ci Hilaal ibnu Ullafa moom woowlu ko mu ñëw mu ne ko anamu mu ne ko sànni naa ko ci diggante tànki bax la yële mu ne ko demal indil ma ko mu dem andi ko bi mu ko andee Sard xool ko ba xam ne mi ngi nii mu ne ko lim sol lépp yaa ko moom mën nga koo summi ba loo ci bàyyi yaa ko ci bàyyi mu summi ko ba dara desu ca màngit joji sëral moom lañ ko féetale moom Hilaal ibnu Hullaf xañ na du ñàkk yeneen bindkat yi bind di wax ne Abu Mihjan euh, moo tekki ko woon ca fañ ko tënkoon ñëw euh, waaqi di yu loolu la bind waaye dañoo wax ne loolu ci ay njuumteem la bokk li gën a wér ci kiray mustam mooy Hilaal ibnu Hullafa arab yi guddi googu perte nañ ci lu mat ñaari junni ak juróomi téeméer ci bisu xaadisiya bi ñàkk nañu ci lu mat juróom benn junni bu dee perse yi ñoom ñàkk nañu lu mat fukki junni nit noonu la Saad binde Omar ibnu Xataab bataaxel leeral ko fatxo gi leeral ko limub ñim fi rey ci jullit yi ñam xam seeni turit mu bindaale seeni tur leeral ko ko kon loolu mooy xareb alxaadisiya waaye solo sa am ci gañe gi jullit yi gañe maaraka boobu euh, xam ngeen ni jamono bi yàlla di yónni yonente bi sallallahu alayhi wa ñaari kàttan yu am doole ñu nekkoon ci àdduna bi Euh, genn kàttan gi mooy furs geneen gi ci des mooy al bizantiya al imraturiya al bizantiya ca Sham kon ñaari kattan yooyu ñoo fi nekkoon am doole lool mel ni jamono yi Amérique ak euh, yi Union soviétique di taxaw dal mënees woon na leen misaal ci ne Amérique la ak Union soviétique ngir ñaar ñooy ñaari doole yi ëpp doole ci adduna bi jamono booba kon solo si gañe gi am mooy ñaari force yooyu benn bi daanu na gañe nañ ko léegi mu des benn kon loolu lu am solo la ci jé jéego bu islaam jéggi léegi kon ndax dawlatul furs muy état furs boobu nga xam ne moom xeexoon na ak euh, imbratoriya al byzantiya ba gañe woon ko ci Saam ba ca peggu al Basfor mu saxaloon fa ay armam lu mat fukki at ak juróom mu mu mat foofu léegi tey bu ñu demee ba jullit yi gañe ko maanaam ñenee ko nii kon ñee nga xam ne ñoom moo leen gañe woon eh, danañ am lu seen xel dem te fekk booba dajale nañu ci mbooloo ñoom perse yi lu mat téeméeri junni ak nangam te jullit yi booba seenu arme matul ñeen fukki junni noonu bi loolu amee kon dana am ragal gu yàlla def ci xoli perse yi ñu ragal ko jullit yi ñee nga xam ni ñooy force ñaareel bi fi nekkoon te perse yi gañe leen ba am luñ occupé ci soon seen suuf lu mat fukki ata ak juróom am lu yàlla tàbbal ci seeni xol ci seen diggante ak jullit yi kon nga ñaay li solo soos yi gis nañ ko ci wax nañ ne Omar dafa ittewoo woon lool xarab xaadisiya jamono bu ne mi ngi laaj ña fa jóge lu xew wax nañ daana xëyee këram ba digg bëccëg dem ci àll ba ca yoon ba di gëstu ñi fay romb ba xam luñ ca xam dajee kañ wax bu seyr mu laaj ko ni ko foo bàyyi ko mu ni ko booru xaadisiya la bàyyi ko mu ne ko lu fa xew mu ko yàlla dàq na ju dàq na yéefare Omar topp ci ginnaawam di ñukk booba mi ngi war ak gileemam moom xamut ni kii mooy amirul mu'minin mu la Omar topp ci ginnaaw naa ko wax mu lu fa xew mu naan ko yàlla dàq na leen yàlla dàq na yéefare waaye ci benn baat bu dul boobu ba ni mu duggee Madina mu gis nit ñi di nuyoo Omar naa ko asalaamaaleykum yaa amirul mu'minin Bushayr ni ko teg maa xamaloon ni ni ma yaay amirul mu'minin Omar yaa axi melni kon gisse nañ ci woyafuk omar akuk toroxloom ta boba fekk ne yoy yi di buru, perse ak euh rom wo len ëpp doole ëpp len kat waye gogul dan doxe kon lolu gisse nañ ci sempalex sidna omar radhiyallahu anhu akuk toroxloom eh, kon ci jamono yi ñu jëm jëm dañ leen andil gannaaw xew xew xaadisiye bobu